أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ànd akaat yéen téere yàlla bi subhanahu wa taala ñuy jël tey benn aaya ci suratu nisa mooy aaya 48 آية ثمانية وأربعون في سورة النساء برم سبحانه وتعالى موني جانغال تي آية بابو لول نان الشرك خطورة الشرك موي بوكالي danger bu nga xam ne am na ko danger bàkkaar bii di bokkaale mbokk yi ay tomb ngi nii ci bokkaale ginnaaw bu ñu jëlee aaya bi ñun ñëpp war nañ koo bàyyi xel aaya bi mu ngi jàngal ñeenti mbir bu ci njëkk mooy azamu zambu sirk rëyaayu kenn dox màgg rëyaayu bakkaar bi di bokkaale bokkaale rëy na rëy goo xam ne moo tax sunu borom subhanahu wa taala ne du ko baale loolu tax kon ñu war a xam ne dafa rëy lu yàlla dul baalaati kon loolu du lu ndaw ndax rëy gi bokkaale rëy moo tax borom bi ne du ko baal nit bokkaale bàkkaar la boo xam ne yàlla du ko baalaatee zanbun laa yuxfar illa liman taaba minhu bàkkaar la boo xam ne yàlla du ko baale lu dul ku ko tuub képp ku ko def soo ko deewaalee rek safar nga jëm waaye boo tuubee yàlla mën na laa baal bokkaale day yàq jëf lépp loo def soo bokkaalee yàqu na kon bokkaale baaxul su ñëwee ci danger bi nga xam ne bokkaale dangereux na ko mooy xuturatu shirk wala ñu laaj lan mooy shirk maa huwa shirk lan mooy bokkaale boroom xam-xam bi ñu koy tontu ñu ne a shirk mooy ngaw def booleeg yàlla taala lenn nga booleeg yàlla lenn fi rububa fi rububiyatihi aw fi uluhiyatihi aw fi hukmihi aw fi asmaihi wa sifatihi nga bokkaale yàlla ci moom gi mu moom wala nga bokkaale yàlla ci yàlla gi mu nekk ne moom mooy yàlla wala nga bokkaale yàlla ci atteem wala nga bokkaale yàlla ci ay turam ak ay melokaanam ñeenti yi boo ko defee yàlla du la baal yàlla moom kenn moomul ku dul moom kon li mu moom jox ko ko yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala kenn du yàlla kudul moom yàlla moom moo war a àtte képp ku jël àtte jox ko keneen kudul yàlla bokkaale nga yàlla dafa am ay tur ak ay melokaan képp ku falsifié tur yooyu ak melokaan yooyu dugg nga ci kon loolu mooy bokkaale mu ne fa iza itaqada al insaan annahu ma allahi xaaliqan aw ma muinan fa huwa mushrik képp ku fas ci sa xol ne képp ku gëm ne am na keneen bindkat gu fi nekk bu mu nuroog yàlla soo bokkaale kan nga soo dee safara nga jëm saa yoo fasee loolu ci sa xol ne yàlla mi borom jaam ñi am na keneen ku fi nekk ku nekk borom jaam ñi comme ni ko léegi gars yi di waxee takk ay rajo diw mooy borom jaam ñi di tëgg di fecc ku gëm loolu boo dee safara nga jëm bu yow mu leer ci ñun borom jaam ñi kenn la mooy yàlla amul keneen kuy borom jaam ñi ku dul yàlla képp kuñ fi tuddee borom jaam ñi dañ koy nax donc yàlla subhanahu wa taala mooy xaaliq amul keneen kuy xaaliq ku dul moom mu ne wa man itaqada anna ahadan siwa allahi yastahiqu an yu'bad fa huwa mushrik képp ku gëm ne am na keneen ku ñu war a jaamu ku dul yàlla kooku bokkaale kat la saa yoo gëmee maa nga fas ne am na keneen ku ñu war a jaamu ku dul yàlla yow bokkaale kat nga mu ne wa man itaqada anna lillahi masilan fi asma'ihi wa sifatihi fa huwa mushrik képp ku gëm ne am na ku nuroog yàlla ci ay turam ak ay melokaanam yow bokkaale kan nga ndax turu yàlla yi walillahi asmaul husna um ci rek jeex na gis nga ca beneen aaya dafa ne wazaru lazina yulhiduna fi asmaihi bàyyil ñi nga xam ne dañuy falsifier turu yàlla yi kon yàlla subhanahu wa taala moom dong moo am ay tur yu rafet ak ay melokaan loolu moo tax yàlla bi muy tagg yonent yi daf leen tagg ne yonent yi ñoo ma xam man yàlla subhana rabbika rabbil izzati ah amma yasifun ñoom malaaka yi ñoom yonent yi dañoo melal yàlla melokaan boo xam ne yàlla rek moo ko moom moo tax yàlla tagg leen kon képp ku fi gëm ne am na am mbindeef am na benn mbindeef ci mbindeefu yàlla yi def leen portable yi kii mode d'avion def leen portable yi mode d'avion loolu mooy tax bu buñ la wooyee duñ la jot mu ne wa man itaqada anna ahadan yushariku allah fi hukmihi fa huwa kafir gis ngeen beneen bokkaale bi nga xam ne tey néew na ci àddina bi lu ñuy wax bokkaale boobu bokkaale la te mooy atte te xam ngeen yàlla li mu wax ci atte mooy inil hukmu illa lillah atte man yàlla man dong maa ko moom atte yàlla rek rek rek rek rek rek rek rek amul keneen inil hukmu illa lillah yàlla moom moom atte kon suñ jëlee atte ñu jox ko keneen rek def nañ musiba wa man lam yaxkum bi ma anzala allah ñaata aaya la wa man lam yaxkum bi ma anzala allah walaay ko wa man lam yaxkum bi ma anzala allah wa man lam yaxkum bi ma anzala allah ñetti aaya kon yàlla moom moom àtte buñ jël àtte jox ko keneen yàlla moo ko moom kon képp koo xam ne da ngaa am pas-pas ne anna ahad yushariku allaha fi hukmihi fa huwa kaafir kooku yéeféer la bu ñëwee ci danger bokkaale bokkaale yàlla tabaraka wa taala zulmun azim ashirku billah zulmun azim lu tax lu tax mu nekk bokkaale bakkaar bu rëy ndax mooy ictidaun ala allah ala xaqillah da ngaa jalgati ci àq yi nga xam ne yàlla moo ko moom mbokk yi ñun ñu toog fii su fekkoon ne kenn sa jabar daf laa boole keneen nooy def waxuma sax sa jabar moo la boole keneen waaye sa doom boole laa kenn rek problème la sa doom sa doom kese boole laa kenn problème bu rëy la waxuma la ak nag sa jabar mu ne képp koo xam ne dangaa jalgati ci àq yàlla taala alxaas bihi te mooy huwa tawxid kennal yàlla tabaraka wa taala bi nga xam ne moom nga ko war a def dangaa jalgati yow sama sa mbir du baax fa tawxid adalu l adl wa shirk azlamu zulm bokkaale tawxid kennal yàlla mooy maandu gi gën a maandu ci kaw suuf ku kennal yàlla kooku ki gën a jub ci kaw suuf ndax lan dafa jox yàlla lim moom waaye ki bokkaale yàlla moo daqa tooñ ci àdduna moo tax luqmaan bi muy wax doomam lu mu ko wax inna shirka la zulmun azim yaa bunay laa tushrik billah dafa mel dañ ko ne limaasa mu ne inna shirk la zulmun azim bokkaale tooñ bu rëy la lu tax mooy da ngaa jël àq yàlla nga dem jox ko mbindeef wala nga dem àq yàlla nga jox ko ab xërëm moo tax lu nga def lu rëy la ixwatal iman waxuma la bokkaale moo gën a ñaaw waaye wa aqbahul qabih moo gën a bon ci lu bon bokkaale bokkaale baaxul te tey addina bi bokkaale moo ko yàq li annahu naqsun li rabbil alamin allahu akbar da ngaa wàññi yàlla yàlla ay àqam ay droit am nga wàññi dem di ko jox mbindeef moo xam ne yàlla moo ko bind mbindeef moo xam ne dafa lot dafa tële munul du jëriñ nga dem di ko jox àq yàlla nga wàññi àq yàlla di ko jox àq mbindeef loolu musiba la ixwatal iman mbokk yi wastikbaarun an taatihi yow mi bokkaale da ngaa rëy rëy lu ne doo topp yàlla da nga rëy xoolal tey nit ñi da nga gis koo xam ne jaamu yàlla gi yàlla santaane ni mu yombee mu lànk ko muy sonn ci loo xam ne amul njëriñ laa yusminu wala yughni min ju di di di fanaana tëgg guddi di fecc bu set fekk bu ñu ne asalaatu xayru min an nawmi du dem jàkk fajar julli ji ñaata nit la ngeen ko gis ay nit yoo xam ne li ñuy sonn moo tax bokkaale yab yàlla la yàlla mi la bind nga yab mu tax nan mooy tandiku bàkkaar bu bon bu rëy bu garaaw boobu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala du ko baale mu ne kii bokkaale dafa rëy ne du jaamu yàlla wa sarfun xaalisun xaquhu li xayrihi danga soppi aq boo xam ne yàlla moo ko moomoon nga détourné ko jox ko keneen ku dul yàlla soo amoon ñaari soxna nga war a aye ci aye aw bi ñaari fan mu xam ne tey moom moom moom mu togg reeram toog ji la xaar mu toog ba 10 heures waxuma minuit de mu wala téléphone foo nekk nga ne ko bon dama bëgg tey aye ci ñaareel bi rek waa garaaw ñaari fan yi nga moom ba suba luy xaw jàmm ngay fanaanoo wala looy fanaanoo dangay fanaana kontaan wala nooy fanaanoo mbokk yi yéen ñi am fii ñaari soxna ñi amagul soxna moom bu ñu xam danger bi waaye ñi am fii laa wax soxna allahu akbar bokkaale nag lu ko lu raw loolu la graawee ndax yàlla moo moom àqam nga nangu àq yi jox ko keneen mu ne ci rëyu bokkaale bokkaale rëy gu mu rëy bon gu mu bon ndax danger bi dans ni mu toll mu ne fa inna man laqiya allah mushrikan fa inna allaha la yaghfiru lah kama qaal jalla wa ala subhanahu wa taala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mbokk yi képp ku faatu bi ngay faatu yaa ngi bokkaale yàlla yaa ngi ko dendale ak dara na la wóor ne na wóor say mbokk na wóor say xarit na wóor say am di jàmm na wóor sa mbooloo te yàlla du la baal safara nga jëm ndax yàlla moo ko wax mooy aaya bi ñuy jàng tey kan la yàlla wax inna allaha naka yàlla laa yaxfiru du jéggal wala du loolu la wax an yushraka bi ñuy bokkaale ko kan mooy bokkaale wax nañ ko sànq kon bokkaale baaxul moo tax yàlla ne du ma ko baalaate te xoolal li tax ngeen xam ne bokkaale dafa garaaw lan la yàlla teg ci daggitu aaya bi lu mu ci teg wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha dinaa baale leneen nit mun na njaaloo yàlla baal ko nit mun na rey nit yàlla baal ko nit mun na fen yàlla baal ko nit mun na sàcc yàlla baal ko moo tax ñoo ñuy wax al abadala al arbaa al abadala abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu omar abdullah ibnu abbas abdullah ibnu abdullah ibnu amr ñoom ñeent nee nañ nga fen ci yàlla nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg dégg lu mu wax de nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg ñu ne leen yéen xam ngeen li ngeen wax ñu ne waaw ñu ne ñu waat ci yàlla fen mu ne waaw fen yàlla dina ko baale wa yaxfiru ma duna zalika ñu ne nga waat ci nit nga wax dëgg nag shirk la yàlla du baale shirk inna allah la yaxfiru an yushraka bi donc bokkaale baaxul léegi nag xool leen seen réew am na ñoo xam ne bu ñu buggee nit ñi xam nañ ne kii dëgg lay wax fan la ñuy waat ci keneen ci mbir da ngay dégg ku ne man de ku ma giñal ci nit ki ci diw rek dëgg la du ma sax nekk fii di sikki sàkk soo ma tuddalee trois jooju rek man daanu naa man allahu akbar di wane ne moom dafa am iman dafa gëm dafa fekk musiba naarul lay ci lay dund nan la nu yàlla yërëm ixwaan yi kon nanu bàyyi xel danger bokkaale ashirku billah azamu zunub fa man abada gayru llahi faqad wada al ibada fi gayri mawdiiha bokkaale bakkaar bu rëy la képp koo xam ne jaamu nga keneen ku dul yàlla jël nga jaamu gi nga teg ko ci beneen place bu mu yellul bu mu warul nekk xam ngeen bokkaale nu mel mu ngi mel ni nga jël oto teg ko ci géej ne da nga koy dawal noonu la bokkaale mel wala nga jël avion teg ko ci suuf ne da nga koy dawal wala nga jël ba train nga teg ko ci géej wala nga teg ko ci suuf nga ne na terrain bi daw noonu la bokkaale mel képp ku bokkaale jël nga jaamu yàlla nga def ko fii xayri mawdiha ndax yellul woon jaamu yàlla bii nga def fii waroo ko fi woon def parce que kii ngay jaamu moomu ko kii nga koy defal moomu ko kii nga koy defal santaanewu ko kan moo ko moom ibnu taymiya bu muy firi al ibada lan la wax ismun jaamiun لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة kon loolu mooy ibada kon yàlla moo ko moom keneen moomu ko soo jàngee kitaabu tawxid dañ lay wax bépp baat bu nekk ibada ci kibaatu kitaabu tawxid li muy tekki mooy wa ma umiru illa li yabudullah luñ la wax illa li yuwaxiduhu lu dul nañ ko wéetal bu ko kenn bokkaale loolu lañ lay jàngal ci kitaabu tawxid kon bokkaale ngoo mu ne képp ku bokkaale faqad wada al ibada fi gayri mawdiiha wa sarafaha li gayri mustahaqiha képp ku ko def soppi nga jaamu yàlla wëlbati nga ko def ko ci feneen beneen barab fa zalika zulmun azim kama qala jalla wa ala fi surati luqman inna ashirka la zulmun azim mu ne ashirk akbaru moo gën a rëy muxbit li jamii al amal bokkaale dafa rëy day yàq day mab bi bépp jëf xoola yàlla yonent bi la joxoñ ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin kan la ñu waxal muhammad la in ashrakta kan moomam taa bi soo bokkaalee yow muhammad la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin allahu akbar kan la ñuy waxal yonent yàlla muhammad yàlla ne ko boo bokkaalee sa jëf yëpp dana yàqu waaye da nga bokk ci ñi perte kon bokkaale day màbbu jëf loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax te bokkaale dafa sew ashirk axfa min dabibi nam la noonu lay màbbee jëf moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam danaan ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay jéggalu ci bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul ndax ndax sew gi mu sew ci biir kër gi bokkaale day yàq jëf wa mujibun lil xilaak wal xusraan day tax borom alku day tax borom perte allahu akbar borom perte bépp jëf mu noonu def borom xam-xam yi bu ñuy melal bi ñuy melal bokkaale ñu ne mi ngi mel ne kuy lekk gerte gerte caaf wala muy lekk gerte kemb yaa ngi lekk gerte di lekk ba sa gémmiñ fees nga yëy benn bu nëb nan ngay def gerte gi ah da nga koy wan xoolal gémmiñ gi ni mu neexee allahu akbar yaa ngi dank rek te kaas ataaya bi nag nga jékki-jékki rek nga tëmbal ci bundub may la ma ndox ma gàllax ni ko bokkaale baa xoolal sans sans yu neex nga yëy nga yëy benn bu nëb mu yàq sans yëpp allahu akbar ndax bokkaale baax bokkaale day yàq jaamu yàlla day màbb jëf du koy màbb day fekk depuis suba nga tabax mu ñëw dóor ci martu lépp màbb ndax baaxul yal na yàlla dimbali ba ñu xam lan mooy bokkaale ñu sori ko borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran wa laqad uhiya ilayk wa ila allazina min qablik gis nga wa laqad uhiya ilayka man ah ya muhammad yàlla nee na yow muhammad man dee naa la wax naa ak yow wa ila allazina min qablik ak ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon aadama nuux ibrahim Moussa isa ñoom yonent yëpp wax naa leen ni la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin su ngeen bokkaalee rek seen jëf yëpp yàqu na seen jëf yëpp màbb na kon baaxul moo tax yàlla yemalewu ko sax ci yonent bi waaye daf kaa wax yeneen yonent yi ko jiitu woon mbokk yi jële nañ ci abi bakra radiallahu anhu qaal قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ndax duma leen wax bàkkaar yi ban bàkkaar moo ci gën a rëy ndax duma leen nettali bàkkaar yi bi ci gën a rëy saxaaba yi ne ah kay mu ne thalaasan ñett la qaalu bala ya rasulallah ñu ne ah kay yonent qaala al ishraaku billah mu ne mooy bokkaale yàlla wa uququl walidayni dëngi sa ñaari wayjur allahu akbar tey dama yóbboon xale yi sorti ñu toog di waxtaan ci mbirum diine benn waay mu ne ma am na benn waay bu daan bu daan bu daan raam diggante police géejawaay ak préfecture wala diggante police géejawaay ak arécar bii daan raam di def yaramu neen ah man de teg naa ko bët waa jooju man gis naa ko yow gis nga ko jërëjëf ñaar ñett nga ko ñeent nga ko alhamdulilahi rabbil alamin waa jooju xam ngeen lu ko def noonu ndekk man tey laa ko xam ndekki dafa dóor papaam ba dagg tubéy ji wa uququl walidayni yemul ci loolu mu ne day violé jabaru sëriñam sëriñ bi fekk ko ni mu defee yaramu neen sëriñ bi ne ko génn ñaa ci yàlla booy génn àdduna yére du la topp xoola waa ji mujjantalu dundam buñ ko woddee saaku sax saaku bi day lakk waaw
benn benn nga ko jox rek après benn benn ñu waxtaan ak bu baax te su ko laa ko rek
gis nga ndeke mu jëntalu dundam nit ñi sax ni muy doro ni muy ni mu ni mu ni mu defee yaramu neen def yaramu neen nga xam ne ñëpp ku su ko gisee sa yaram day daw nit ñi dañuy jël ay yére di ko solal boo ko solal yére yére bi day dañ bu ñu jël sax yenn saa yi saak takk ko saak bi day lakk wala mu ruy noonu la dee solul yére mais bi muy dee nu mu toroxee moo tax ndey ak baay du ñu moroom na benn waay boo xam ne sama xarit la woon dafa mbëkkaloon papaam miir jubi toj papaam ne ko demal adunaan sa kanam waa jooju di sonn di sonn di sonn di sonn ba benn bis jabar ji ne ko yow te ngaa dem ci armée li baalu ji sa papa sa papa dee na mais demal nga baalu ji ko ndax problème yi nga nekk sa mbirum papa la demal mu dem armée li pikin yii di ziyaara ji bàmmeel bi gisu ko mu téléphoné benn xaritam boo xam ne kooku waxoon na ko man vendredi bu nekk su ma demee ci armée yi bu ma ziyaaree sama papa dinaa jaar sa armée lu papa ziyaare ko defaraat ko mu woo ko téléphone ne ko mais sama armée lu papa ban côté la nekk kooku expliqué ko mu dem xool ba sonn gisu ko mu woowaat kooku kooku ne ko xam nga nu ñuy def da ngay ñëw nga yendu fi bu ñu añee ba pare ñu ànd ma won la ko mu dem yendu ndoog waa ci ba ngoon ñu julli takkusaan dem waa ji gisul armeel bi waa ji jaaxle ne ko mais man armeel bi fii rek laa barki dem maa ci sampaat tableau bi ñi ba côté yi la nekkoon mais mënu ma ko gis waa ji mënul fexe ba teg armeelu paa bi bët wa uquuqul waalidayni dënge sa ñaari waajur yonente bi muy wax loolu dafa sukkandiku woon nii la defoon fa kaana muttaki an dafa sukkandiku woon loxo bi nii mu daal di jóg toog mu tàmbali naan saxaaba yi ala wa qawlu zuur ak wax caaxaan ala wa qawlu zuur am na riwaaya bu mu ne wa sahaadatu zuur ak seede fen seede caaxaan saxaaba yi nee na ñaari baat yi fa ma zaala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata da koy wax di ko wax di ko wax ba saxaaba yi tiit ñu ne aka neexoon mu noppi ku nekk di xalaat ne aka neexoon mu noppi an mbokk yi ndey ak bàyyi du ñu moroom de bokk na ci mbanu bokkaale mooy borom bi subhanahu wa taala wax na li shirk arba qaba'i bokkaale am na ñeenti mbon mbon yi mu bon ci ñeenti aaya alquran luy wane ne bokkaale musiba la te ñeenti aaya la yuy wane yoo xam ne yàllaa ko wax day wane bokkaale dafa bon aaya bu njëkk yàlla ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima loolu mu ngi ci alquranul karim yàlla ne man yàlla duma baale kuy bokkaale képp ku bokkaale yàlla kooku day ubbi na buntu fen wu rëy rëy rëy rëy rëy wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima ubbi nga buntu bàkkaar bu rëy yow mi bokkaale lu mooy benn aaya ñaareelu aaya yàlla mu ne wa man yushrik billah faqad dalla dalalan baida képp ku bokkaale réer nga réer gu bona bona bon réer gu ñetteelu aaya mu ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lizzalimina min ansar yàlla ne li wër tey mbir képp ku ma bokkaale araamal naas ci yow aljanna yow moom aljanna araam na ci yow safara rek nga jëm allahu akbar loolu musiba la ñeenteelu aaya yàlla mu ne wa man yushrik billah fa kaannama xarra min assama allahu akbar képp ku bokkaale yàlla yaa ngi mel ne ku xawee ko asamaan mu ne fa taxattafahu tayr aw tahwi bihi ri- ri- riix fi makanin shahiq ku bokkaale yàlla mu ngi mel ne ku xawee ko kaw asamaan bi ngay ñëw di daanu picc yi këf la encore allahu akbar naaw ak yow Sëñ Ibrahima wax répertoire mu ne picc yi ñoo la këf yóbbu la kaw asamaan aw taxwi bihi riix wala ngelaw li jël la naaw ak yow daan la yóbbu fii makaanin shahiq ci barab boo xam ne xóot ak sori gi mu sori kenn mënu ko nat bokkaale doy nawaat bokkaale baaxul mbokk yi xoolal lii yëpp ñun ñu xam ko di bokkaale ñii ngi ci nen yi ñii ngi ci xërëm yi ñii ngi ci lam yi ñii ngi ci pétaaw yi ñii ngi ci bàmmeel yi la ilaha illa allah ah Sénégal mooy dëkku xërëm léegi sax ku bëgg nekk borom alal da ngay nekk xërëmkat ñu ñëw ci beneen darse bi mooy uqubatu ahlu shirk ban yàlla la mbugal di mbugal nitu bokkaale yi borom bi subhanahu wa taala nee na إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ربنا نعم na lazina yakfuruna billahi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ko weddi complètement yemuñ ci waaye wa rusulihi yonent yëpp depuis Adama ba Muhammad yonent yëpp lañ weddi soo weddee benn yonent rek weddi nga yonent yëpp benn yonent mu ne yemuñ ci loolu waaye ñu bëgg a tàqale diggante yàlla ak yonentam yi lu tax ñu ne nu'minu bi baat wa nakfuru bi baat numinu bi Moussa wa Isa wa nakfuru bi Muhammad ñun de danañ gëm yenn ci yonent rek numinu bi Moussa faqat ñun Moussa rek la ñu gëm wala Isa faqat yàlla mu ne ñooñu ñëpp ay yéeféer lañ yonent yëpp ngay génn amana rasul bima unzila ilayhi ah min rabbi wal muminuna kullun amana wa mala wa waa yëpp ngay gëm wa rusulihi ñëpp ngay gëm yonent yëpp doo weddi kenn bokk na ci arkaanul iman as-sitta lan ak lan la al imaanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kon ab julit mooy laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli du ñu tàqale yonent yi waaye dañuy gëm ñi weddi ñii loolu ku ko def weddi nga yàlla tabaraka wa taala yenent yëpp wa yuriduna an yattaxisu bayna dalika sabila ñu bëgg a jël occasion nag occasion profito ñun ñun yàlla diw la yónni ci ñun wala ñun waaye léegi bu fekkee ne dañ la ne soo weddee yonent yëpp dem safara yow nga nekk jullit ba pare gëmoo Muhammad kon yow foo jëm da ngay gis Sénégal jullit boo xam ne xamul Muhammad seetaan na benn vidéo ci youtube bi benn cheikh bu dugg ci àll bi dem ci benn dëkk la ilaha illallah di laaj di laaj gaa yi di leen tariloo fatiha ay jigéen yoo xam ne dañoo muur seen kanam waxuma jilbaab de dañoo muur seen kanam mënuñu fatiha dañoo muur kanam ay paa yoo xamante ne leen ñu dee ñu leen di wax turu muhammad xamuñu ko man huwa nabiyul islam nga ne man man huwa nabiyul islam alaysa bi bi isa cheikh bi ne yaa subhanallah dama ko seetaan ci youtube ci ci ci ci facebook partagé woon naa ko sax xëy na su ma demaatee xool dinaa ko fa fekk nga jullit bu xamul yonent yàlla muhammad fan nga jëm te yow boo juddoo bu ñuy nodd sa liqaam imaam bu ñuy di nodd sa nopp bi su waxee ashhadu an la ilaha illallah lu muy wax ashhadu anna muhammad rasulullah bu ñuy liqaam ci beneen noppi bu waxee ashhadu an la ilaha illa lu muy wax ashhadu anna muhammad rasulullah suñuy noddu ci jàkk ji di julli allahu akbar allahu akbar su waxee ashhadu an la ilaha illa ku muy teg suñuy liqaam iqaam bu ñuy iqaam turu kan la ñuy wax ashhadu an la ilaha illa allah fi tashahud bu ñuy taaya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu nga dugg bàmmeel isa daxalta al qabr inna al mayit isa wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaabu yonente bi ne ataahu malakaan ñaari malaaka jóg yëkkati la nga jóg ko toog ñu ne la maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada ah ñu lay laaj muhammad xamoo ko musiba wala fi nga tàmbalee ak muhammad depuis nga judd ñu nodd li xaam di la woo ci jàkk julli ngay taaya lépp yaa ngi tudd turu Muhammad nga dee dugg biir bàmmeel ñu ne la waaw Muhammad moom nga doon wax loo xam ci moom nga ne mën ngay xaw ci moom dara samitu naasa yaquluuna rek fa qultu nan leen yàlla musal nan leen yàlla xiir ci boppam nan leen yàlla won dëgg mu wërsëgalu ñu topp nan leen yàlla won neen mu wërsëgalu ñu sori yemuñ ci loolu waaye dañoo bëgg a tàqale diggante yàlla ak ay yonentam yàlla mu ne ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina ñooñu ay yéeféer lañ dëgg yàlla nee na yéeféer yi préparé naa leen mbugal mu doyeti ñëw na ci xadisu abdullahi ibnu masud radiallahu anhu wa ardah قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار متفق عليه كيف كده ba ngay dee yaa ngi woo keneen ku dul yàlla wala yaa ngi dendale yàlla ak lenn safara nga jëm daxala naar la yonent bi wax safara la jëm wala beneen riwaaya bi man kaana axiru kalaamihi la ilaha illa allah daxala aljanna fii mu ne man maata wa huwa yad'u min dunillahi niddan daxala annaar fale mu ne man kaana axiru kalaamihi la ilaha illa allah maa ngi benn vidéo fii ci sama portable benn cheikh bu dëkk Tunisie bu doon wax li li tax mu bëgg waa tabliix li tax mu bëgg leen mu koy neetal mu ne li tax mu bëgg waa tabliix mu ne dama dem Pakistan ñu ne ma demal nga génn ci biti nga indi nit ñi nañ julli si ci jàkka ji mu ne ma génn di ut ay nit yi ñëw ci jàkk ji may ut di ut di ut di ut aw ma kenn yàlla daan may dimbali ma gis benn waaye bu màndi mu ngi xeeñ xul nag sàngara ma ne ko yaa cheikh mu ne ma waaw ma ne ko julli jot na de duñ dem ci jàkk julli waa ji ne ma xee nan dem julli ji mu ne ma jàpp ci loxo bi ñëw lu ma ñëwee ba ci buntu jàkk ji gars yi ne ma mais haza mudminul xamr kayfa yadxulul masjid mudminul xamr ki dafa màndi naka la jugee ci jàkk naka nga dugalee ci jàkk ku du ku naan sàngara rek imaam bi déggloo rek ñëw ne bàyyi leen jàmbur eh ma nga yóbbu ko mu jàpp mu ñëw julli mu ne ma yóbbu waa ji ci jàppukaay bi mu jàpp ñëw imaam bi bañ gaa yi dóor ko imaam bi yóbbu ko sàppe premier ñu julli ñu kàbbar ruko sujjóot waa ji yem foofu ci sujjóot bi ñëpp di julli waa jaa ngi sujjóot rek ñenn ñi seen xel ñu daan xoolal rek kii moo ko dafa rek kii dafa màndi dafa mën a julli waaye yaa ngi si jot mu ne ñu ne asalaamaaleykum julli gaa yi ne eh yaa imaam sa waa ji de ba amul sax benn rakk benn sujjóot la am yow nag yaa ko dugaloon ci jàkk dafa màndi imaam bi nee na ma ñëw di xool fekk waa ji dee na daxala fil masjid wa salla rakka wa sajada wa maata ala sujud sajda wahida wa maat lu njëkk mu ngi doon naan sàngara léegi léegi mu ñëw cheikh bi ko indi ne ma waaw mais man julli naa ba sonn deewuma ci sujjóot kii ñëw tey rek dee waaw yàlla yàlla allahu akbar kon loolu moo tax nit ñi war bañ a di wañ di bañ découragé lu gars yi di caaxaan lu gars yi di foo bul découragé demal rek waaw mal asaf ñun daawaatuñu sax léegi dañu bàyyi daawa ku nekk léegi sa bopp nga tal moo tax dëkk bi mel nii ah fii ñu toog boo doon laaj bu ma tàmbale woon léegi ndey joor di ñëw ba si fii ku nekk ñaata nit nga dugal ci sunna dina gis koo xam ne fii mu ngi ci fukki at ci sunna dugalul kenn loolu gàccal nga nekk ci sunna mënoo indi kenn ci sunna ak sunna ni mu neexee ni mu leere ak diine ji ni mu neexee mënoo indi kenn mënoo waar kenn ba muy ba muy julli la ilaha illallah mënoo fexe kenn ba mu góorgóorlu aboubacar keroog bi mu duggee ci lislaam yonent bi tàllal loxo mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dafa ne yonent diine ji lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war aboubacar daal di génn premier jour mu indi ousmane ibnu affan deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Maazun troisième jour mu indi Bilal ibnu Rabah quatrième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam da ngay jàng ñu ne asara mubashirina bil janna ñaata lañ fukk lañ Aboubacar moo dugal juróom-ñaar yi ci lislaam Abu Hurayra bi ngeen dégg ñu ne mokkal na hadis 5374 hadis Tufaylu ibnu Amr moo ko dugal ci diine ah ñun nag ñun kan lañ dugal lan mooy suñu wax ñu leen góorgóorlu ci ngeen dëkk bi nu mu mel du lenn de ñun la rek damay faral di tooñ sama benn soxna su ma su ma ñëwee tëdd dégg ñu ay nit di tëgg wala ñii di yuux wala ñii di jàng ma ne ko tey ñii ñoo aye bindal suba ma dégg ñeneen ma ne ko ñii ñoo aye tey bindal ginnaaw suba ma ne ko ñii ñoo aye bindal ba semaine bi ñëw ma ne ko dégguma ibaadu yi ngeen bokk leen ci bokk leen ci terrain bi yéen da ngeen a daw terrain moo tax ngeen bàyyi terrain bi ak ñeneen moo tax ñeneen di daawa jël ñi ñi di dugal ci caaxaan parce que yéen daawaatu leen yéen yéen a ngi naan ataaya yéen a ngi xëccoo hadis bu wér bu wér waaye ñoom ñi ngi daawa da jël nit ñi def leen ay yàlla yàlla la ñu def leen ay wala ñu def leen la ñu def leen kenn daawaatu waaw noonu ko kon yal nañu yàlla dimbali ñun daawuñu nag ñeneen daawa rek doomu aadama moom jikko bi mu yor mooy butéel butéel du vide da nga ciy def dara wala ngelaw dugg ci ay da nga ciy def dara wala ngelaw dugg ci ixwaan yi ñu leen góorgóorlu fonk sunu diine xam ne diine ji mënuñu yëngatu leneen lu ko gëm ala kulli xaal mënuñu nekk ci leneen lu gën sunna mënul nekk asaasu shirk bu ñëwee ci fondement bokkaale bokkaale dafa am ay keno mu ne asaasu shirk wa qaidatu allati buniya alayha moom bokkaale fondement bi nga xam ne ci lañ ko tabax huwa taalluqu bi gayrillah huwa taalluq bi gayrillah la ilaha illa allah saa yoo jëlee sa xol nga aj ko ci leneen lu dul yàlla rek yow sa xol bi fondement way nañ ci bokkaale te tey loolu moo am taalluqul qulub bi gayrillah xol yëpp dañoo aju ci lu dul yàlla waaw loolu moo tax ñu am problème saxaaba yi ñoom dañoo jëloon yàlla ñu def ko seen xol moo tax gis nga bi ñu leen ne inna naasa qad jamau lakum faxsawhum lu ñu wax fa zaadatum imanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil Moussa bi bi ñu ko dabee ci biir ci géej gi ñi gaa yi amul iman naan inna la mudrakun inna la mudrakun lan la Moussa wax kalla inna ma'i rabbi Ibrahim bi ñu koy sànni ci safara sa lu ñu la wax yàlla moo ngi ànd ak man yonent yàlla muhammad bi ñu ko dabee xaaru xiraa mook abu bakar abu bakar tiit yàlla mu ne allah tansuruhu faqad nasarahu allah id axrajahu alladina kafaru saani isnayni is huma is yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana ñooñu seen xol yépp dafa aju ci yàlla ñun nag sunu xol yi dafa aju ci àdduna ndeysaan allahu akbar yonent yàlla Moussa dafa gis benn waay buy ñaan ba foqataani feeñ mu ne yàlla doo may kii yàlla mu ne kii kii xelam nekkul ci man de xelam mu ngi ci xaram yee muy sàmm naa loxo yi ak kanam gi moo jublu ci man waaye xol bi mu ngi wax sama sama xar yi mbaa duñ ko tekki duñ ko yóbbu da ngay gis benn waay buy julli allahu akbar mu ngi fayee ko bor billaahi gis nga bu may sëlmal tey wa rabbul kaaba kiit fekk mu ngi julli de allahu akbar mais kii daf may fontoo sami allahu liman hamid non naa bàyyi ba suba sax bëgg naa xam ne tey moom dama xaw a kii da ngay gis koo xam ne waxuma sax yooyu mais làmb boo xam ne jéem na mu ngi jéem a bëri ak seytaane mais daw na ñëw na ci jàkka ji all mu dégg ñu daal mu ne ah mbaa du sama mbër mi mu la jàpp tàggal la ak war daa ko ah di nga yuuxu muy ah léegi xoolal mi ngi julli mais wallahi ay nit ñoo ci joué benn film ci mu ngi ci youtube mooy nga gis nit ñaa ngi ci jàkka bi fekk ñu ngi ci biti ilimaan bi ne allahu akbar ilimaan moo njëkk a génn jàkka ji di téléphoné maanaam yaram baa ngi fi mais ruu bi génn na ñeneen ñëpp génn xam ngeen nit ñi kañ la ñuy teewlu ci julli xam ngeen ko fu wax ah ah da- dernière rakk dernière rakk rek ñu génnoon jàkk ñëpp dañuy daw ñëwaat de ay ay waa waa ñoo pare rek xaaral ma daw ñëwaat buñ kàbbaree kàbbar armal ñii dem nañ ñi ngi stade ñee ngi marché ñee ngi yaay day reer bi ñu may invité tey yow laa ginaar lay doon ñee ngi ñee ngi buñ de dara dasu doon lul imaam a ngi taaya dina asalaam ñëpp daw ñëw toog nag taxiyaatu lillahi zakiyaatu tayi fekk yow amul dara ci biir bi dem na nan yàlla jubal so moo tax booy julli da nga war a xeex ak seytaan Umar ibnu Abdul Aziz dañ ko gis ci julli ndeysaan bu ne bismillahi rahmani rahim mun a tekk alhamdulilahi rabbil alamin mun a tekk ñu ne Umar ibnu Abdul Aziz yow da ngay dagg sa julli gi sa aaye mu ne dagguma ko de yàlla mooy wax ak man ma koy tontu ba foog nga def loolu xadisu jàngeen ko qasamtu salata bayni wa bayna abdi wali abdi ma saala daa ngeen hadis bi foog ñu teewlu julli yi julli gi boo ko dul teewlu am naa benn téere bu tudd salasina nuxta fanweeri tomb lil xusu fi salaa pour nga mën a am toroxlu ci julli fanweeri mbir soo ko deful doo am toroxlu ci julli allahu akbar fu jëm te pourtant jàngeen ko de qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim laxdari mu ne lilsalati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin mu ne wala yanaaluhu illa alxaashicuun lissalati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin waaye mu ne loola yanaaluhu illa almusallin te yaa ngi julli amoo leer boobu amoo cafka boobu moo tax allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum allahu akbar assalaamu aleykum allahu assalaamu aleykum ñu gëm a góorgóorlu pour ñu am toroxlu suñuy julli ndax julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi léegi nag lan mooy lan mooy asaasu sirk mooy ataalluqu bi gayrillah wa man taallaqa bi gayrillahi wakkala allahu ila ma taallaqa bihi wa azzabahu bi wa xazalahu képp ku jël sa bopp nga sukkandiku ci keneen ku dul yàlla képp ku jël sa xol nga jox ko keneen ku dul yàlla yàlla dina la bàyyee kooku waaye yàlla dina la toroxal yàlla dina la gàcceel képp ku jël sa xol nga dugal ci keneen wala leneen lu dul yàlla yàlla dina la gàcceel yàlla dina la toroxal waaye yàlla dina la bàyyee kooku waaw te dinañ la ŋàññi dañ la ŋàññi ëllëg te li nga doon def kenn du ko gërëm borom bi nee na laa tajcal ma allahi ilahan axar fa taqud mazmuman maxzula bul boole keneen ak yàlla soo ko defee ñu gàcceel la ñu toroxal la bul boole leneen ak lu dul yàlla soo ko defee gàcce fekk la ci torox fekk la ci loolu yomb na de pour nga dégg ko xoolal ki nga xam ne dafa am aajo mu dem ñu ne ko da ngay jël ñetti xeer wala nga jël ñetti nen wala nga jël ñetti guro nga def ko ci ndox nga samp ci puso nga def ko ci ndox nga bàyyi ba 3 heures du matin nga génn ci sa kër nu la sa yaay jure nga sangu loolu toroxaluñ la nga génn dung di di di yërndu magum jëmm boo xam ne yaa ngi bi jaaw ngay def yëfu dof loolu mooy dofloo nañ la waaye kañ lay xam ne torox nañ la benn waay fekk la fa ne waaw kii du imam nga daw fir ak sa yaramu neen di kepp sa waay yàlla torox nga benn jigéen moo ma woo mu ne ma sama jëkkër dama jékki-jékki rek dégg 3 heures du matin muy sangu ma yërlu ma gis ko mu ne dumm ci digg kër gi rek ma ni maa ko tey de ndaw si moom ma ko nettalee mu ne maa ko tey ma ni kokkan la rek mu ne iir iir noppi balaa xale yeew mu ne mu ne man ma yuuxuwaat ma ni kokkan mu ne mu ñëw mu ne yow amoo benn sutura xam nga ne man mii la yaa ko tey ndaw si ne ko ah man du ma ci xam ndaw si ne la maa ko tey dama xam ne kii dafa dof di mu ne bi ma pare bi mu sangoo pare ma xool paan bi ma gis ay ay puso yu ñu jam ci guro la doon sangu noonu la ñuy def léegi bu ñu xëyee suba jël guro yi dem ci imaam ne imaam am imaam yër lañu yab nag moo tax imaam bu ci bàyyiwul léegi ko guro rek nga dee wala ñu jox ko taalibe yi yalwaan ci mbedd yi mbokk yi bokkaale al israaku billahi fi asmaihi wa sifaatihi loolu jàng ngeen ko ak bokkaale yàlla al israaku billahi fi hukmi wal israaku billahi fi ibadati kull hadihi al aqsam shirkun billah bokkaale yàlla ci turam ak melokaanam yi bokkaale yàlla ci atteem bokkaale yàlla ci jaamu lii lépp bokkaale la ndax bokkaale baaxul bokkaale gi ci gën a rëy mooy bokkaale yàlla ci jaamu ko loolu nañ ko moytandiku bokkaale yàlla ci topp gi ñu koy topp bokkaale yàlla ci jaamu gi ñu koy jaamu moom yàlla du ci nangu benn allahu azza wa jalla huwa rabbul ali al kabir wa huwa al xaaliq li kulli shay'in wax borom bi moo bind lépp mooy ji mooy borom mooy ku kawe ki mooy ku màgg ki moo bind moom lépp moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu falahu wahdahu haqu tashri' moom yàlla kese kese kese moom moom moom sharia moom moom loi yi kenn warul atte yeneen loi lu dul loi yàlla waaye gis ngeen ñun àdduna bi ñun jullit yi xullee nañu ba ñu indil ñu yeneen loi yoo xam ne du diine te loi yooyu ñun bañuñu ko naqarlu wuñ ko bal sax daf ñoo neex bal sax yooyu loi daf ñoo neex bañuñu ko te yàlla nee na loolu bokkaale la subhanahu wa taala mu ne wa shirku billahi fi hukmihi ka shirku billahi fi ibadatihi bokkaale yàlla ci atte mu ngi mel ne bokkaale yàlla ci jaamu ndax yàlla nee na bu atte maa ko moom inil hukmu illa lillah man yàlla man kese maa moom atte kenn warul atte kudul ban loolu na leer ci ñun mu ne ñaar yépp bokkaale la kima kilahuma shirkul akbar muxrijun min al millati l islam ñaar yépp bokkaale ci jaamu yàlla bokkaale ci atte ñaar yépp bokkaale la day génni nit ñi ci me ci yoonu lislaam loolu na leer ci ñun kon nanu fexe ba luwaa yi ñu ñu teg nan ko bañ waaye nañu jóg ut ay pexe ut ay yoon ba nuñ ci génnee yàlla kese kese kese kese dinu àtte waaw kon jéem ay pexe woo nit ñi xamal leen ne lii du diine xamal leen ne lii ab julit waru ko àtte woo xale xamal leen ne lii ab julit waru ko gëm ba julit yëpp gëm ko sànni ko fële waaw wallaahi ñu yore la àq nga muñ ko moo gën nga yóbbu jullit ci loi yi nga xam ne du loi diine li anna al ibada xaqu llahi waxdahu la sharika lah kama qala subhanahu faman kana yarju liqaa rabbih falyacmal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad yàlla nee na képp ku mu leer wóor di nga dajeeg man mu ne préparel ay jëf yu baax bul bokkaale sa boroom ci jaamu gi nga koy jaamu والحكم حق الله وحده لا شريك له كما قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحد yàlla nee na waruñu maa boole ci atte kenn wala yushrik wala ñu maa bokkaale fii hukmi yi ci sama atte man yàlla ahadun kenn léegi nag atte bi ñuy atte atte kan la ixwaani loolu mooy bokkaale muy lu garaaw a garaaw a garaaw kon aaya bi mooy aaya bi ñuy jàng tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jëriñ ñu ci mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بسم الله لول موي آية بي إن الله نك يالله laa yaxfiru du jéggal an yushraka bihi ku ko bokkaale wa yaxfiru yàlla dina baale maa duna zalika leneen lu dul bokkaale li man yashaaw ku ko neex nag ku ko neex attention de yow mi bëgg ne xaaral kon ma nekk ci lu ma neex bu ma bokkaale waaw boo demee yow man xiyam yàlla na neexoo ma nag ah li man yashaa la wax nga ñëw yow man xiyam yàlla mu ne neexoo ma waaw li man yashaa mu ne wa man yushrik billah képp ku bokkaale yàlla faqad iftara sos na kerye na def na isman azima bokkaar bàkkaar bu rëy allahu akbar bokkaar bokkaar bàkkaar bu rëy nga def ci yàlla yal nañu yàlla dimbali kon lii mooy darse bi yal nañu yàlla jéggal njumte yi nangul ñu li ci jub assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم